waaw tamxarit nu koy wax shahrul muharram moom mooy njëlbeenu at ci atum jullit ñi waaye bu ñu waxee assura nag assura noo génnee ci baatu fukk muy diis ashura mooy fukkeelu fan ci weeru tamxarit muy bis boo xam ne bis bu màgg la bis bu bare yiw la bis bu bare ngëneel la di boo xam ne xew-xew yu bare ci lislaam ci la xew lu mel na ndam li yàlla joxoon yonent yàlla Muusaa ci kaw Firawna bis boobu la am ashura nag yonent bi mi ngi koy yoonal bi mu ñëwee Médine bi mu gàddaay yi jóge makk ñëw Médine ci la yoonal li nga xam ne mooy assura ndax bi mu ñëwee Médine dafa fekkoon ay xeetu juif ay waa ni Israël yoo xam ne dañ daan célébrer Ashura ci feet goo xam ne dañ daan daan tuddee Yom pour ki seen langue fête goo xam ne ñoom dañ daan woor daawoonu liggéey di màggal bis boobu beneen yonent bi laajee lu tax ngeen di màggal bis bi ñu ni ko ah bis bi ko dañ koy màggal ndax ci la yàlla joxoon ndam yonent yàlla Moussa ci kaw Firawna yonent bi ni leen comme loolu la yéen gënu leen ma yee ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam kon man tamit damay woor bis bi fukkeelu fan waaye itam digal ko sama xeet waaye tam pour wuuteeg waa bani Israël tamit dama leen di diggal nuy woor bisu juróom-ñeenteelu fan ba tekki fukkeel ba moo tax euh, woor bisu ashura bi lu am solo la yonent bi nee na bokk na ci ngëneel yi mu am mooy day far euh, bàkkaaru at mi wees yëpp nu fàttali itam assura tamit ni nga koy célébrer itam dafay wute ci gox yi ak ci culture yi boo demee Iran ak Iran Iran ak Irak nga xam ne foofu chahid yi ñoo fa ëpp ñoom Ashura doon jàpp ni bésu naqar la bésu tiis la ndax ci la ñu reyoon ki nga xam ne mooy Xuseyn muy ñaareelu doom ci Ali ak Fatima fële ca Karbala moo tax ñoom bésu naqar la bésu tiis la wuteeg nag ak sunna ahlu sunna ñoom dañu jàpp ne Ashura du feet gu ñuy màggal sax feet la boo xam début d'année la rek feet la goo xam li ci ëpp solo ci jàmm yàlla mooy koor gi euh, boo demee ay réew yu mel na Maroc euh, yooyu dañuy jàpp ne Ashura moom bésu mbégte la bisu yaatal sa njaboot la te tradition boobu la Sénégal jël moo tax fii ngay gis macha allah ashura nu koy feetu di ci togg di ci berndeel waaye itam bisu ñaan la tamit ndax njël njëlbeenu atum jullit ñi la ñaan ci yàlla yàlla defal nu tawfiq def jàmm ci àdduna bi def dal ci xel yi ak ci ak ci xol yi tamit nangu jaamu yàlla itam def ci am solo bu baax a baax.